la hmm. ci foofu ñu naan xatiyaatu hmm. ay ndaw yoo xam ne nii la maa ngi demee hmm. nii la seen i jikko derew yoo xam ne wujuhum seen i kanam ab la ju moo gën a rafet moo gën min anwaari yi rabia wax la xum seeni jikko mm-hmm. axaju moo gën a rafet mm-hmm. min na si min asaari yi mm-hmm. ci tóortóori rabia wa alfaaduhum seeni baat araqu moo gën a sew min na si mi asaari yi ci ngelawi na si mi njëlam faj talaytu ma feeñalee min hum ci ñoom wala ma feeñal min hum ci ñoom maa loo xam ne yusri dana mu xeeb alal rabin ci lolli ak zahiri bu daa rafet wa yow te dana mu doy an rannaatil masahiri walil baati salimba kàddu yi ma déggee ci ñoom moo gën a rafet rabia moo gën a neex itam baati salimba yu ñuy wal yu ñuy wal faj talaytuma peeñal minum ci ñëw maa loo xam ne yusri dana mu xeeb ala rabien yi ci lolli azahiri bu daa ji rafet hmm. wa yox nii te dana doy an ranaatil masahiri wal isbaati salim ba hmm. salim ba lu ñuy walla hmm. muy muy baatal <laughs> wa kun naa nekkoon nañ taqaasam naa déggi ñëw ala hibdil widaat ci wattu soppante kun naa nekkoon nañ taqaasam naa déggi ñëw mm-hmm. alaa hifdil widaadi ci wattu xaritoo mm-hmm. ñeen nañ sàmm xaritoo gi mm-hmm. waxabe listibdaad ak wattandeku beddoo listibdaad mooy jagoo li nga am rek nekkal sa bopp rek ñu ne boo kenn waan la yetafarrata ak bu dee di beddee koo kenn ci ñun binti saasin ci bànneexu ñu ne bu ci am kenn bu ci kenn am dara lu mu joxul lu wala a bu mu jagoo dara hmm. wala bi rasaatin donte ci kalal soo tuuti la hmm. rasaas taw wër wisal lay hmm. waaye lu waaye am lu mu tuuti tuuti rek na ko bokk ak parce que ñun ñëpp ay mbokk te lu tuuti mbokk xaj na ci mais noonu lañ gisee àndoon ko ku naa nekkoon nañ te xasam naa déggi ñëw alay hibdil widaat ci wattu soppante mooy xaritoo gi nañ ko sàmm waadal listibdaat ak wattande ku beddeeku mooy bu nekkal boppam rek wa wala wala tafarrada ak bu dee di beddee ko ahaduna kenn ci ñun bitti saatin ci bànneexu wala ci bànneex wala yastasira bu kenn ci ñun jagoo dara wala bi saatin donte taw bi bisal faañ maanaa ñu dogu fi yow min ci bis boo xam ne sama yëkkateeku na dañ nu woo mm. mooy bis bi leer na jaww ji wuri na mm. te yokk husnu woo taaram mm. xam ne taaru jaww ji feeñ na taaru suuf si feeñ na wa te xatte musnu woo niiram istibaax ci suba istibaax mooy naan ak suba istibaax mooy naan ak ngoon ji na wuri ñu dogu xalaa nal fahiya ci bu ñu soxla xooxat bil xuruji génn ila baadil muruj dem ci lenn jàtt yi ñu nañ génn dem def benn naatu ci bi li nu sarrixa ngeen nañu wëral an nawaadira bët yi affaire yaade ci dool ci dooli dër yi an nawaadira yu la na tax léegi nañ seetaan ci dooli dër yi li nu sarrixa ngeen nañu wëral mooy nañu sàmm an nawaadira bët yi affaire ci dooli dër yi an nawaadira yu la way na tax wana xola ak ñu pompee alxawaatira xelaat yi bi soy mil mawaatir yi ci seenu niir yu daway taw wala melax yu daway taw ak itam xool ci jaww ji fa baras naa ñu génn ñu daal di génn wanax nu te ñun que suhóori ñu ngi mel ni weer yi xeddatan ci lim bi ñuy génn nag ñun ñu ànd fukki nit ak ñaar lañ comme ni nga xamee ne weer yi ànd fukki weer la ak ñaar waaw fa barat naa ñu génn wa naxnu te ñun mm. ka suhóori ngi mel ni weeri heddatan ci lim mm. wakkanat maanay judaymata mm. ak ñu ngi mel ni ñaari naanu xaalay judaymatunul abras mawaddatan ci cofeel malik ak xaqiil ñoom la judaymatunul abras daan toogat daan bokk moom sangaraat fi ñu daan ko naan taw na ñoom ñeent fukki at gisee ma mosu wax dara waxaat ko mm. te ñoom ñaar mosu ñoo wutee ci kàddu mm. loolu moo tax ñu madrabul masali mm. ci déggoo Malik ak Aqil mooy ñaar ñi jusee ma daan bokkat de naan sàngaram si madrabul masali ci déggoo ndax ànd nañ ñeen fukki at mosu ñoo wutee ji wax maanaam wakkanat maa ne jusee ma ngi mel ni ñaari way naanu xaale jusee ma tunul abrasi te mooy Malik ak Aqil ma wadda tan ci ñu génn ilaa hadiqatin jëm ci toolu dër boo xam ne axadat jàpp na suxro faa taaram wa zayyana te mu rafet ñu dem ci benn toolu boo xam ne bu rafet rafet la wa zayyana te mu rafet watana waxante xeetu azahiruha ay tóortóoram watala te ñu mellahu nga ne ay façon ay façon tóortóor yu bëri ñoo ca nekk te itam ay couleur yu bari moo ci mm. wa maana te ànd nag ñun alkumaytu mm. jàkkeer mm. asamoos daa ji faraw jublu ci fa sàngara la ci jublu alkumaytu sàngara asamoos bu daa ji faraw ñu ngi amee sàngara wasu xas ak way sarwi kaas asamoos ñu mel ni jant ak ñoo xam ne dañoo sarwi mel naka jant wasaadi ak aji jooru alladi aji jooru joo xam ne yotribu dana mu bégloo asamea aji dégg wayu nii te dana ko soxla du ñaan daal lépp luy neexal yoon moom am nañu ko xam nañ naan gu neex am nañ ay sarwa ay sarwi kati yu rafet am nañ koo xam ne mu ñuy wéyal wayu neex yu ñuy bégloo wayutri wayu wa yaqri te dana mu ganalee moom saadi boobu kulla samen bépp dégg bi ma maa li nga xam ne yi dana ko sob wala bi maa ngeen def maa li nga xam ne tey ma ko sopp moo jooru mooy kuy wëy alladi aji jooru joo xam ne yutribu dana mu bégloo assaami aji dégg wuyu lii te dana mu ko soxlaal wa yaqri te dana mu ganale kulla samen bépp dégg mooy bépp nopp maa ci li ko sopp fala mat ma an na ba ci ñun ak juloosu jataay bañ demee ba àgg fañ war ñu toog ba jataay yi dal mm. wa daara tëwandeelu alay naa ci ñun alkuoosu kaafi mm. foofu ñuy sarwi kaafi mm. xam ne léegi soobu nañ ci noofi waxala tàbbi na alay alay naa ci ñun simrun jàmbaar ak nit koo ñeme nit moo ne jamaax ko nekk ci moom timrun sagar waaye ay sagar la bañ ne wax ne fii baax na bañ toog ba nekk ci suñuy mbir defaru yu suñuy kaas pour mm. doxal suñu noor mm. laam ku ñeme nit mm. ku ne jamaax ci suñu biir ay sagar nag la la seen waaw fala man ma an na ba dalee bi naa ci ñun al juloosu jataay wa daara te wandeelo alay naa ci ñun al koosu kaabi waxala tabbi na alay naa ci ñun simrun jàmbaar yoo xam ne alay nekk na ci moom sagar fa tajaham naa wu ñi dikkale ko mooy ñi mas ko ba engagé ko ba taje xam naa wu ñi dikkale ko mooy ñi poos yeneen caractère bañ ko real taje xumal xiidi kem dikkale kem dikkale ay jongama asiba ay way béjaaw ni nga gisee gune yu jigéen de def mag salaw noonu lañ ko def de wa wajat naa ñi fekk safa yow mi naa sell suñ bis bi xasiba jaxaseef na ko pour ñun daal suñ programme yàqu na <laughs> ki yàq na ko rek ñun daal noonu lañ ko gisee mm. ni liñ programme woon ki yàq na ko mm. moo tax ma wajat naa ñu fekk naa sell ak suñ mbir bi mm-hmm. xasiba di jaxase mm-hmm. illaa annahu ndare moom mm-hmm. sallama na yoonam taslima ulil fahmi na yow borom yi dégg yi waaye nam na yooxee nag tegtal la ne kii nit piir la wa jalasa mu xaraf yëpp de dajji la ta iman nasri mooy ay kaste wisaar war nazmi ak wëy la tiima mooy ndabal gàtt loolu lay firi ci cosaan mm. mooy muy denc waxi wax yu rafet yi denc ci xelam mm. ci diggante wëyee wisar mm. mu di ko génne dégg nga waja wajalasa mu jékki ya fuddu di dajji la taima nasri ay ndami wisar war nazmi ak wëy la tiima mooy dencukaay gàtt dencukaay raf koy wanaanu te ñun nag wi ñu ngi jàpp rek minem bisaati yi ngi tàllalum ndeysaan mu ngi firéeku ñun ñu ngee ratu rek hmm. wanam bëri ñu ngee gaar hmm. li tayi bisaati yi ci leem ay lalam sa hmm. law daal buntu buñ yaakaar ne buñ ko defee danañu bàyyi rek dana gàtt rek ñu ngi koy def rek dafa xel num gàttañ lo ilaan xam naa ba wëy saa diina aji wëyal suñu al muxrib ku daa ji dikkee tumaranke wa muxarriduna te daa ji wëyal suñu ba suñu waykat bi wëyi wëyi wëyi ñu jàng ñeenti wëyi dégg nga mm. ilaa ma suhaadu la tasilina habli mm. wala tawina li mimma ulaqi mm. sabartu alayki hatta hela sabri wa kada tablugu ruhu talaqi wa ana qad azamtu ala intisafin usaaqi fihi xilli ma yusaaqi fa in waslan alastu bihi fa waslun wa in sarman fa sarman kattalaaqi tuuti rek moo dana dañ ko soog màggale ilaa ma bakkañ nag suhaadu ilaa ak jar bu ànd listifaam maam lañ koo bindee duñ ko bindee ti yanara ilaa xarafu jar bu ànd ak listifaam liif ko bindee ti yanara moo tax ilaa ma bakkañ nag suhaadu yow suhaad laata si nee na den ngay jokk xam lii sama bu mm. heure bu ne rek yaa may dagg dama dagg rek mm. te man yow rek lay xalaat mm. wala te wi ne te doo yërëm lii ñu xaal ma ci li nga xam ne ulaa xii maa ngi dajeeg moom li may dajal ci ay coono amuloo ci benn yërmande boo ko àpp nag sabar ci muñ sabar su muñ naa alay ci yow lu ne maa la koy muñal attayen la ba noteer sabar yi sama muñ ba fi mu ne sës naa wakaada te jegeñ tam lu di jot ar ruuxu sama ruux ruuxi la al mi wutu damir bi attaraqi samay dendi baat daanaka dee laa de bëgg a kala ida balaxati taraqiya dégg nga wa te jegeñ tabluxu di jot ar ruuxu ruuxu attaraqi ay dendi baat muñ naa ba sës naa fi mu lu ci tegu dee laa de def ana man nag xanaa samtu dogu naa alanti saabin ci xemoo boo xam ne u saaqi danaa nandalante fii jom xilli sama xarit hmm. mayu sax xilli may na dal hmm. léegi nag hmm. moom jël sama droit rek mooy maanaam wala boog kenn du ma sonalati ci dara parce que yow la féexu la war ko teg sa bopp waaw gannaaw la daal dana jëriñ waruñoo nekk dara sonna dañ laa war a féexal nga nekkal sa bopp xam nga loolu wala joo mu ne la féexu la yaa ko teg ku séexu rek dafa war a féex <laughs> ay féexoo séexoo loolu daal loolu daal képp ku ko teg boppam seetloo bu baax a baax waaw seetloo bu baax a baax teg boppam seetloo bu baax a baax mu ne li ma gis nag loolu la waa ana man xaraasam tu dogu naa xalaat sax fi ci xeemu ma jël sama àq rek usaa xëy danaa nandalante fii ci intisaa boobu xilli sama xarit maa di nga xam ne usaa xëy dana ko nandalante ak man fa in waslan bu dee jokk alal du góob danaa bànneexoo bi ci moom fa wax lun payam jokk do su fekkee jëfam mooy jokk ma xamal ma njëriñ bégal sama fay ma it mooy jokk ko xamal ko njëriñ bégal ko wayi salman bu dee dogu la su fekkee jëfam mooy dogu ma soril ma fa salma fayam dogu lay do may dem ma dogu ko rek wan ko nag gannaaw mën nga may mujjal mën na la mujjal katalaqi ni ki fate tuuti rek moo dee xaala xaaris ne fastafhamnaa ñu laaj alxaabisa kii foxee bil masali salima yi kii way ñu ne ko li ma ngir la nasaba la nasab al aw al wasla baatu waslu al awwala wa rafaa te mu rafaa asaani ñu ne ko pour lan fa in waslan bi nasbi aladdu bihi fa waslun bi rafi xanaa bu fekkee faa leen boole faa xarafu watif la te xanaa taamiyoo ak mat boo ñëw war a bokkaate benn nasab bu njëkk bi dafa bu ñaare wayil farman fa sarmu hmm. fa aqsamu mu giñ bi turbati abawayhi hmm. ci suufas mu ne giñ na ci bàmmeel a hmm. ne laqad nataqa na bi maa li nga xam ne ixtaaroo tànn na ko siiba wayi loolu la siiba wayi tànn siiba wayi jumla ba mu mooy almaru majziyun bi amalihi in xayran fa xayrun in kaana amaluhu xayran fa jazaauhu xayrun kii itam in kaana amaluhu waslan fa jazaauhu waslun mu noom loolu dégg nga xam nga in xayran fa xayran mën naa nekk in xayrun fa xayrun mën naa nekk in kaana fi amalihi xayrun fa fi jazaihi xayrun ku ci nekk dama tëdd mu waxar in kaana amaluhu xayran fa huwa yujzaa xayran ba xoonu ñaareel wala in xayran fa xayran wala in xayrun fa xayrun amaa nag raba bu njëkk bi nasab bu ñaare bi in xayrun fa xayran kooku moom tànn ñu kaana fi amali xayr foo yujza fa xayrun mu ne lii la sibu yi tànn moom li wax kenn du ko ci dim ah coox la jox waaw na ko waaw loolu laa jël xaw bi moom wax kenn du ko ci dim loolu la sibu yi tànn tax mu ne fayin xalaatu bihi fa waslun wa in sarman fa sarmun kattalaafi ñu laaj ko lu tax mu rafaa mu nasa bu jàkk bi rafaa bu ñaareel bi mu ne lim wax moom la siiba way hi tànn siiba way hi farisi la duut arab njëlbeenam njàngam itam ci barabu abi hanifata la daan dem doon fa gëstu fiq yàlla def benn hadis dikk mu am njuumte lu ko ci dal ci istisna mu xam ne loolu lépp moom dafa duut arab te jàngul waxi

dal di cëlu xëy na itin ca boobale arawul jame gis-gisu mbooloo mi mooy fexe mbooloo mi ee nit ñi nag gis-gis yu wuutee dikkal leen fii ci daganal fii tajwisi nasbi ci daganal nasab war rafe ak rafa ci mbiru nasab ak rafu ma seen ak rafa wam as mooy sawabu xam ñu wax ne rafaa gi moo jaadu mm-hmm. fa in waslun mm-hmm. aladdu bihi mm-hmm. fa waslun mel ni in xayrun fa xayrun almaru majziyun bi amalihi in xayrun fa xayrun mooy in kaana fi amalihi xayrun selon kaana ak xabar la ñaata mu ne fi xayrun kii litim fa jazaauhu xayrun boo boolee rafa mm-hmm. loolu lay doon mm-hmm. in kaana fi amalihi waslun mm-hmm. fa jazaruhu waslun wa qaalat wax taifatun ab kuréel ne lay joosu du dagan fii ma ci ñoom ñaari waslu yi ilal intisaab ndare nasabu xam ñu wax ne déedéet fa in waslan ala zubihi fa waslan mooy li wax mooy almar majziyun bi amalihi mm-hmm. in xayran mm-hmm. fa xayran mm-hmm. in kaana amaluhu xayran fa huwa yujzaa xayran fa huwa yujzaa xayran amoon mu ñaareel ma dégg nga walay na dam noonu lay wastabhama lëm ala axarina ci ñeneen ñi aljawaabu tontu li ñeen ñi ñeneen dañu leen mekk wasaara dal di tas baynahum ci seen diggante al istixaabu coow werante bi dog kenn ku ne hóolu na lam wax lu war a génne wa dalika al waaxir te joojale aji tabbi gan gi ñu masku nag kooku tabbi moom de mu ngee feeñal ibtisaam si maarifatin muñ ak borom xam muñ ak borom xam ne yow mu ngi muñ de mm-hmm. yaakaar na affaire bi xam na ci dara mm-hmm. waaye lam yëfu doonte tudd lu mm-hmm. bindi sofa yiñ ci doon tudd bindi sofa yiñ ci doon tudd doonte wax dara xataa isa sakkanat badal asamaajiru yëmmu yi sam jara mooy baatu gaynde mooy ñàngali kàddu yi wasamata te noppi almasjooru ku ñu jàjji wasaajuru ak aji jàjji ñoom ñoo doon weeranteeg ko doon wax noppel ak ñëpp bañ noppee. xaala mm-hmm. wax na daf leen wax ne. Mm-hmm. yaa qawmi yéen samay bokk. Mm-hmm. alaman unabbi'ukum danaa leen xamal. bi tawili ci tawilam. wa umayyizu danaa jàppee. sayyi al wax. mina mina li di ci aji mu ne leen. daa bëgg ngeen déglu ma hmm. ma leer na leen hmm. su fekkee sëy ak saqim la ngeen bëgg a xam mën hmm. na ko leeral ana man una biukum dana leen xamal bi tawili yi ci tawilam woo ma yus dana jàkkate alxawla ji wéri wax min alili yi ci aji xoppam inna hoo naka luy mbir lay jus dana dagan mm-hmm. rafan wasl lay ni rafa ñaari waslu mm-hmm. fa in waslun alastu bihi fa waslun muy mm-hmm. in kana fi amalihi waslun fa jazaa'uhu waslun wala fi jazaa'ihi waslun wa nasbuhuma ak boole leen nasab fa in waslan alastu bihi fa waslan in kana amaluhu waslan fa jazaa'uhu waslan wal muxaayiratu ak wutale hmm. fi li arab yi ci li arab doy hmm. na ma ci seen diggante koy wax lan bi naf hmm. bi ala juubi wax lan bi rab koy dem dara wa dalika loolu bi asir ixtilaafil idmaar nekk na ci kem wuuteeg nëbbu wa taqdiril maxtuuf ak nattala lañ xasal fi hadal idmaar ci mbiri la léegi xanaan bi ngay enrabé wax bi mu ngi topp la nga nëbb rek la nga nattale ca diggante ba rek waaw ah, wuute yi enrab bi mu ngi ànd ak wuute yi ñuy nattale rek wa dalika loolu bi asa bi ixtilafil itmam nekk na ci kem wuuteeg nëbbu wa taqdiril maxduuf ak natal la ñaatal fi hadal bitmaat ci mbiri lem qaala xaalis nee na fa farata dal di raw mm-hmm. min al ci mbooloo mi mm-hmm. ifratun jéggi dayoo mm-hmm. fi mu maraki ci weranteeg moom wan xiratun ak nasu mooy gaaw ila mu baraki jëf ci gaar lantoog ñoom ma nga nit ñi dafa am ñu jeex ñu jeex ñu teye bu ñu wax ñi kay song nañ ko werante da ko war na ko dàq bi kenn ba pare taraw. Hmm. te jamaati ma jamaati ci mbooloo mi. Hmm. ifratun jéggi dayoo. Hmm. bi mu marati ci weranteem. wan xiratun nasu. ci law mooy dugg ci law barati jëm ci gàllantam. fa qaala mu ne waaw bu dee jom ne kaay. amma iza daawatun daal bu ngeen wootee bu ngeen wootee. dana saale wàcc leen ñu xane. wa talafaftum ngeen dajale ni daal ngir pertante. yéen su fekkee ne yéen bëggu leen ko mm-hmm. leen waxal dëgg ngeen defar teen ngeen bëgg mm-hmm. kay def mm-hmm. fama kalimatun ana lan mooy ab baat boo xam ne yéen moom insitum bu leen sobee xarfun xaraf la mahbubun wala mu ñu sopp awis mun wala muy tur lismu li ma ñaar loo xam ne fii nekk na ci moom xarfun tag mooy pegg xaloo buñ bëri buñ rab mm-hmm. ban baat nga xam bu neexee muy xaraf mm-hmm. te kuñ ko tontu mu kontaan mm-hmm. wala muy lismu te la mooy firi dellu ñu su dee mën ngeen naxu mu ko mooy baatu naam naam mooy waaw suba xaraf la wala yéen wax la ko da ngay kontaan naaw mooy gëlëm juru kër. xamu min ana ban lisim. yataraddadu mooy dengi dengi. bayna fardin ci diggante mufrad xaasimin bu daa ji takku. wa jamin ak jamu mulasimin bu daa ji takku. ana ban baat. Hmm. mooy baat boo xam ne mënuñoo fisal ne mufrad la hmm. mënuñoo fisal ne jamo la hmm. suñ jàppee ne mufrad la amul jamo suñ jàppee ne jamo la amul mufrad su dee yéen xam ngeen naxu baat boobu ban la ci baati arab mooy baat sarawi tubay dafa am ñett lu dayoo jamo kaana ganha isal taxaqat bu yéegee amaatat mu dañal asiqala diis waa laqatte mu boyal al moo taqala la ñu gëx la ñu xeew xana xaa goo xam ne bu dikkee ci baat rek baat ba day xoyof kañ tëjoon kaba dajal ci jéego xaa mooy xaa gi ngay gis ci malaikatu gis nga bu jihaa gi nekkee baat bi dootu doxaati tëggal beneen jamu dañ ko defal tanwin di ko jaree kasara ndax siixatul masdari lay am bu jihaa ne woon bañ mala iku nag baat bi tëggal jamu dëgg lay waaw dañu ko soppi de day ko mayam selon bu baax a baax xaa boobu tun jamu iblis te la mu baax a baax. xataar hmm. yi ba tun mais boo hmm. ah, mu soppeeku ko rek. Hmm. soppeeku ko rek. xaaloo gis nga ko. mu folle alhamila aji ana siin fan laa duggee fekk fa ku fa doon hmm. mu ne ko doo fi lëggéeyee di dara hmm. te du ci am benn masla loolu bu ñu amee hmm. su dee man ngeen nax mu leeral leen loolu mooy diggante isan ak mudaari bi mu war a nasab boo su jaarale siinu tanwiin isan du ko nasab isan ugrimaka boo doon isan sa ñu mu ko rek nga yow wala isan soo ko ugrimaka mutasila bi haalo wama ana lan mansubun lu ñu nasab la abadan ala zarfi ci zarfu la yaxdudoo du koy jar si waa harfin lu may arab su dee yéen man ngeen naxaw ana ban baat nga xam ci baati arab yi boo ko fekk dañ ko nasab ne ko nasabu dañ koy jar ak xaraf te xaraf bi ko ci mën a jar loolu mooy henda wa henda fiha nasbu yastamirru lakinnaha bi min faqat jarru jàng ko ci mulaatu naa dégg nga wa ayu mudaafin ana ban mudaaf aqalla yàqana min waral idaafati ci buumi idaafa bi orwatin cig buum waxtalafat ci wuutee hukmuhu atteem bayna masaa'in ci diggante masa ngoon wa xudwa suba ana ban lisim nga xam mu tëqu idaafa mu am foo xam ne buñ fa àggee day xotti qaa'idatul idaafa ba mu jeex tag xam ne wuuteem ci atteem ci masa ak atteem ci xudwa bokkuñ mooy baatu ladun dafa tëqoo la mislu ladun zaydin wa in shita lada waaye la dun bu ànd ak baatu xudwa mm-hmm. nasab lay la dun xudwa tan rek la ñuy wax mm-hmm. ànd ak baatu nag masaa nag mm-hmm. la dun masaa in la ñuy wax xudwa tan da ko nasab te dafa saqoon idafa koo xotti dum xotti qaida idafa axalla yàq na bi urwatin ci buum min waral idafati ci buumi idafa yi waxtalafa si wute wukku moo xatteem bayna masaa yi ci diggante masa wa xudwa wama ana alhamilu mooy hamil alladi hamil boo xam ne yastasilu dana jox ko axiroo mu jetteelam bi awal yi ci njëlbeenam wa yaamalu te dana liggéey maa xoosuhu lu ñu jattam misla amal yi kem liggéeyam baat bi hamil la dafay liggéey ca lam ànd ñaari xaraf képp la boo dalee ci xaraf bu njëkk bi yaa ngi dale ci mujj gi te soo ko jattoon lam doon liggéey rek Hmm. loolu lay liggéey hmm. mooy yaawut ni daa yaa hmm. da ngay indi harful yaa rek nga dem ci alif mu ñaari araf ittasal axiroo bi awali tey boo jiitaloon alif nga teg yaa muy ay ay harfu nidaa la wanaa di masdar hom bi yaa aw bi aya aw hamzatin aw ay selngu baaw wa ayu haamilin ana ban haamil bu naibu aji huutum mm-hmm. arhabu moo gën a yaatu mm-hmm. min hu ci moom wakran ci tàgg mooy wàccuwaay mm-hmm. wa adamu te moo ko gën a màgg makran ci pexe moom moo cosaanoo liggéey bi dañ ko jee huutu si waaye ki ko ji huutu si nag fa mel ni moo ko ci gën a féex de su dee man ngeen naxu man ngeen leeral loolu xuruful qasam hmm. waaw la ak ba ak taa hmm. fekk na fi'lu la hmm. ak harafu jar ak lim jar fi'lu bi nag su fekkee harful qasami baa la man nga koo génne nga ne uqsimu billahi wala nga bañ koo génne nga ne billahi loolu bu dee harful qasami baa la moom ngay jëfandiku yëpp man na ko loolu moo tax liggéey la boo xam ne baaxa ko cosaanoo bu doon waaw doo ko man wallaahi rek nga wax doo uqsim wallaahi mm-hmm. bu doon taayi doo ko man tallaahi rek nga wax doo mën a mm-hmm. ji mm-hmm. te yeneen huruful xasam yi mënuñu ko moo tax dañoo gis ne liggéey bi liggéeya baala maanaam yi maanaam baala araf bu ko tegtalee ti baala wut te lu baax a baax waaye nag waxi arab nag giñee waaw moo ci gën a Mm-hmm. kon waawul xasami dafa wutu baa mm-hmm. te mel ni moo gën a tasaaroo ci waxi arab mm-hmm. mooy xaamilun naibuhu arhabu minu wakkaran alquran bu ba cee jàng jëfandikoo waawul xasami moo gën a bëri jëfandikoo baa waaye yu xaamilin ana ban xaamil naibuhu bi ko wuutu arhabu moo gën a yaatu minu ci moom makaran ci pexe waaw da mu ci pexe mm-hmm. waaw sax te a bari lillahi ñaal yàlla taala ci ran ci tuutuuti moo def mm-hmm. aywa wa fi ayi mawtinin ci mm-hmm. eh, talbasu lay hoddoo asukuraanu góor ñi baraqi an niswaan musóori jigéen ñi wa tabrusu génn rabaatu rijaali borom lali borom lami tànk yi bi ama ime rijaal ci kaalay góor wa tabrusu génn rabaatu rijaal borom lam yi. lami tànk yi. bi xamaa imi rijaal ci kaalay góor ñi. léegi yéen bu dee man ngeen naxwu ana fan ngay dem nga góor mu sóoru. jigéen kaalawu bu dee yéen man ngeen naxwu loolu moom fan la fan ngay dem. nga fekk góor gi mu sóoru. jigéen ji kaalawu. mooy adat boo ci demee. li ngay lim buy góor baatu adat bi day am taar. buy mm-hmm. jigéen baatu adat bi du am mm-hmm. te wax dëgg yàlla góor moom lañ xamee woon ñàkk ànd ak taar mm-hmm. jigéen lañ xamee woon ànd ak taar da nga wax ne xam sa turi jaalit xam su ni sa in ngay wax am jàngu ci ma su ñaawal fekk waaw leer na waaye nii jibu fan lay waree xifdul maratibi wattu martaba yi xalal madrubi ci ku ñu dóor wa ki dóor ñoom ñaar ñoo séq jumla bi mm-hmm. ana fan nga war de sàmmee seeni bu baax a baax ci tartibul kalima mm-hmm. mooy faayel ak mafoon su ñu ànd ak faayel mm-hmm. xam nañ ne lii cosaan mooy faayel jiital ci faayel mafoon mujj Mm-hmm. su dee ci barab boo xam nag mënuñoo xàmmee faayel ak mafoon lu mooy cosaan mm-hmm. il faut day war ñuy jëfandikoo cosaan bu ñu indee faayel faayel rek lañ ciy teg door mm-hmm. a indi mafoon wa qaddime mooy wa in taqul kallama Musa ya'la fa qaddimil faayela fa wa awla wa ma ana la ismun moy lisim joo xam ne la yoxrafu deesu ko xam illa bi istidafati kalimatayn ndare ci boole boole ñaari baat aw ixtisaar wala gàttañ lu melu ci moom ala xarfayni ci ñaari araf wa fi wadayi te nekk na daa ji nekk wa nekk na ci teg bu ñaareel bi iltisaamun boo xam ne pour nga ñaari baat maanaam dara ko ba su bàyyi xel ñu mën a déggee maanaam. léegi bi nga ci tegee ñaari baat. maanaam warlu la lay jox. bi nga ko daggee ba mu des ñaari araf. a warale la lay jox. mu ne ana ban lisim. moo mel noonu. mooy mahma. mahma boo ko jëfandikoo mu jumtukaayu sarta. dafay ànd sarta ak jawab. wax bi doo ko àgg. kon laa yu'rafu illaa bi istidaafati kalimatayni. te xam nga warlu la. wala mahma nga dindi maa bi. mu des mah. muhdis bi feeñal la. nga mën a ay këbu këbu. wax ko waral la. yëpp boo ko seetee man man ko ci tafsirul maqamat ay li ma la wax nii la demee rek. a mu ci tafsirul maqamat yi ci biir bi mu def ci cat bi baari bi ni cat maqam bi. waaw da nga ko ci gis waaye noonu la rek. yaakaar naa mu ngi bëgg a benn benn muy bëgg def yaakaar naa. mu ne wa ay wa waa dégg nga. Mm. wa ma wasfun ana lan mooy sifa boo xam ne. Mm. isa u sifa bu toggee see ko bi nuuni ci nuun. Mm. E naqasa wàññeeku say bu boromam fi noo yooni ci badi. wa xuwee ma taqee ma lees ko bi dooni ci wa xaraja te mu génn mi ne tukkee ci nawle yi kiliyaan wa taarada te mu gaab lu hooni ci doxaat yi. Mm-hmm. ana ban baal xam muy sifa. su fekkee daal moom amul nuun ñu ngi ko xemale fi mu daan xem hmm. ah kuñ ko mellalee moom mu neex la hmm. waaye suñ ci dollee nuun nag hmm. moom kuñ ko wax fonka dinañ la ko mooy baatu dayfun gan soo ci defee nuun muy dayfa nuun mooy gan gu mën a sonn la gu def gannaaw ya dayfana ya dayfana ma kunta illa dayfana xam nga xam na Mm-hmm. ya dayfana ma kunta illa dayfana mm-hmm. ya dayfana e yow suñu gan gi mm-hmm. ma kunta nekkula illa dayfanan ndare de gan gu suufe suufe ah, ya dayfana ma kunta illa dayfana alla waaw dayf boo ko defalee noonu loolu la kon ñu jàng lu ba ma àll wasu mooy sifa boo xam ne ida urdi fa bu toggee see ko binnuuni ci nuun naqasa wàññeeku saahibu boromam fil uyuuni ci bët hmm. yi. wa qulima te xeebaaleen ko bi doone ci xeer. wa hmm. taarada te mu wa xaraja hmm. te mu génn mina sabooni tukkee ci nawle yi kiliyaan yi war ñuy jëflante. wa taarada te mu gàddu loone ci dowaat yi. baax na beneen yoon incha allah. te ñaar ak fukk la mm. masalatan ci masala mm. wax ka adadi ko ci tolloo seen lim bi fukki mm. nit ak ñaar a ngi fukki fukki jax ak ñaar a ngi nii neex a séddale ku ne benn waaw ah. mu ne fa haadihi li sinta ñaara gukk la masala tan ci masala hmm. dégg nga hmm. wa qaadadikum ci dëppoog seen lim hmm. dama ko gisagul wasinata ladadikum tey mandaxam seen tata xulóo xam naa yéen a ngi ñàngal waaye da ngay màndiru borom xalawa yu gàtt moo tax ci jege yi lay xem ak fukki jam ak ñaar fukki nit ku ne benn neex na sédd walaw sittum bu ngeen dollee na ah sit naa ñu dolli su ngeen waxee lu gën a xóot ñu indi cax yu gën a xóot wayin xottum bu ngeen delloo xot naa ñu dellu su ngeen dellu wéeti ñu delloo di fa téye xaala wax ne almuxbiru aje xamle bi haadihi lxikaayati ci bi leen nettali kii nettali nettali bi te mooy xaarit wax ne fa wara da dal di rot selu ko baax naa ci ñun min ahaajihi ci jamam mooy caxam yi allaati yi nga xam ne xaalat tiitloo ne laman xaalat ba ñu gaawee ko mooy biñ xasee dikk ji ñun maa lu xam ne xaarat gëlëm na lëxoo ñaal alakaaru xelaat yi mm-hmm. waxaala teñ njàkki ji mooy mm-hmm. ñu jàppee mm-hmm. caxam yi de lu xam ne ñun xelaat ba tontu ko mënu ci dara su ne lewan daal tontu lu ñuy jur la suñuy xelaat moom jaafees na ci warada dal di dikk maa lu xam ne xaarat gëlëm na lëxoo ngir moom alafkaaru xelaat yi mm-hmm. waxaala te mu ñàkki mm-hmm. min aha jihi ci jamam allah ci jam yi nga xam ne xaala mm-hmm. tiit loo nañu la man xaarat ba ñu gaawee ko muy bañ dikki xaaris nee na bala ma ajasana ba lottu looñu alhamu feey fii baxari yi ci géejam wastaslamat te omatu tama imuna suñuy buuka suñuy gàllaj mhm. li siir yi ci njeeweexam mhm. ba nga xamee ne caxam yi ñun mënuñ koo tortu mhm. léegi daal xam nañ ne moom kalaman wala man suñ morom daal wastaslamat te omatu tama imuna suñuy buuka suñuy gàllaj li siir yi ci njeeweexam ba loolu xamee daal a daal naa jéng nañ ministre xaali ruyeti tukkee ci diis lu gis mm-hmm. la ko mm-hmm. ila stilsali riwayati mm-hmm. jëm ci sax ko wàcc riwaya solom moom def ko waral góor gi ñu fi neexul la woon ki sabote bir bi waaye dégg nga sëñ <laughs> ma ne xam naa ca jël benn duggee ci gaal bi ah góor gi ñu fi neexul noonu yàq programme bi ah waaye léegi nag sëñ bi ñu bëgg a jàngee la ah dal naa jégg nañu minute xaali ruyet yi tukkee ci diis lu gis mm-hmm. la wa ñaal ko mm-hmm. ila sinsaani riwayet yi mm-hmm. jëm ci sàkk ko wàccee solo anu jëlee wañu génnee min bax yi tabarrumi mm-hmm. mm-hmm. ci beewam yokkat bihi ila btixaayi taallumi mm-hmm. jëm ci sa koo xamlu minu ci moom yi fi fu yeñ doon def da ko xeeba ko ayibal dana moom ñu génn ca xam ne kii moom a fa qaala mu ne ne nasala an naxwa naxwu fi uskallaa mi ci wax wasilatal melxi kam wàccooyo xorom bi temps mi ci ñam mm-hmm. waxajaboo te mu yi naxu xam mm-hmm. basariri taxaami mm-hmm. walis gis maanaam walis walis walis walis gisi xoli yu suufe ji yàlla mi def naxu muy xam-xam bu am te bu dul koo xeloo man nga caa bañ a xew waxajaboo te mu yi naxu xam basariri taxaami walis xeli ñu suufe ji ginnaaw ci yàlla moomu mm-hmm. ne laa alaltukum du ma leen may de mm-hmm. maraamun benn jàpp de mm-hmm. leen ma lay du ma leen wala tafay du ma lakum ñeexal leen xaraaman genn lakkatu xol lu ngeen ko nim si ji du aw tuxam wi la nii ndare boog kullu yedin bépp loxo ci yéen mm-hmm. waxta soni te jagleel ma kullun képp minkum ci yéen ci yéen mm-hmm. bu yedin ci xewal kenn ku nekk mm-hmm. dana am lu ma cërali farale ma ko defal ma ko moo doon dana yéen ngeen ngeen man ngay bu ngeen dajee xel jar leen yërëm ngeen man ngay wala ngeen julaat xanaa bu ngeen man bu ngeen dajee xel ko xam yu la nii dara boobu maye ma kullu yedin bépp loxo. Hmm. waaye xasoo ne te jagleel ma kullum képp min kum jiyeen bi yedin ci xewal. Hmm. falam yab xaddesul. Hmm. ah fil jamaati ci mbooloo mi. illa man dara koo xam ne ahana torox lu na li hukmi yi ñaan xatteem. war na ba berte mu sànni ilay jëm ci moom. ko ba affaire kam yi kum yi. ah danañ teegu loxo jubóo. ah ñun ñëpp ñu xam ne comme ñu ko bëgg. bëgg rek ñu ànd ak moom ca lay far ñu am li mu bëgg kenn ku ne joxe yekk la woon ca boo xam mm-hmm. jox ko mm-hmm. kon na ba doon te mu sànni mm-hmm. loolu ñaar ku baax këmm yi daañ jëri poosam këmm yi falamma xasalat ba mu xamee nag taxta mi kaay yi ci roon takkam bañ ko joxee lépp ba mu dajale ko ba denc ko abrama taxal na soxla ta sa kaay yi tàkk tàkkatal ñawam ba wala génne xalaatam mana fa mm-hmm. kasaroo mu wëññi yéene isin ca boobale mm-hmm. an asraari alxaasi ci mbóoti jamo wa mm-hmm. badaa yi ngay jaasi ak wéy tumaranke lottu loo am mu wëññee ci maa loo xam ne jëla koom benn bii ci moom sada al asaani xoom ak ab xel yi wa jëllaate mu feeñal mat naa wu fenkam bi noori burhaani ci leer layu la nañ ba loolu amee nag ci la génne xam-xam wax lu leeral leer hmm. indi ay brahim yu leer hmm. maa loo xam ne jalaa koom peena bi yii ci moom sada al azhaani hmm. lënt bi mel ni xoomal ci xer yi wajallaa te mu huññee matlaahu fenkam bi noorin buraani ci leeru lay leer ak lay bu leer nañ fenk waaye xaala wax na arraawi haaris nee na fahim naa ñu gëlëm xaama yehiibu waa ndax faa buy nga ne fahim naa ñu gëlëm na waxtu wañ déggee la wax fahim a yëfam ba mu waxee bañ xam ñu ñëpp dañoo gëlëm waa jim naa ñu lool il jim naa ba tontoo feeñ ba ñu tontoo dañoo xéemu wala dim naa ñu wéccu xalaamaa ci li nga xam ne nag da na min naa ci ñun képp fi ñu ko jotoon a jaar ci ñaaw ñaaw réccu waa xam naa ñu xaraf naa sabiru di ngàntulu ilay jëm ci moom intidaaral ak yaas kem ngàntulu way muusi su ko defee ñu ne ñu def ko yéen borom xel a juum yëg na juum nga tax ñii ko jéggulu waa xam naa ñu xaraf naa sabiru di ngàntulu ilay jëm ci moom intidaaral ak yaas kem ngàntulu way muusi wa nu aridu ñii gaaral alayhi coom itdaal kaas namp kaas ñii ko jox ci suñ naan fa qaala mu ne ah maarabun laa abaa maarabun xaajo rek la laa abaa war du tera ah mooy nit ki dafa la jël mu bëgg rek du du laa fonk rek du laa fonk rek waaye dafa mu ngi jëriñu jabar dafa xam ne bu la ngeen jëriñu taw bu ngëm la rek mais loolu bokk la fonkeel de ah maarabun xaajo rek la laa abaa di mun a la wa neex Mm-hmm. faatal naa ñu guddal ñu yàggal murawadatoo sakkum mm-hmm. ñu topp naan ko dañoo bëggoon nga naan ci sàngara bi mm-hmm. kii bi dafay gudd tem bëgg guddi kon ñu jàng loolu ba beneen yoon insha allah un haajo rekk de laa ma watun du teral de hmm. naan gi ngeen ma puus hmm. dara bëgg bëgg jëriñu ci man rek mais du fonkel hmm. ndax la jiitoon wane na ko wa masrabun te de naan goo xam ne lam yeb xa desatul la wa ñaar ko indi fi man xalawatun neex te man yi soxla nu ma ko sama ni soxla wu ko wa masrabun te de naan goo xam ne lam yeb xa desatul la wa ñaar ko indi fi man xalawatun neex waaye ndeysaan nit ak koo bëgg a mm. mu ne faatal naa ñu yàggal mm. murawadatahoo sàkkum mm. waale naa ñu tofale ñu njokkale muhawadatahoo nemmeeku ñu ne ko jox joxaat na ko sëñ bi ba tey ni nga ko nar a defee loolu lañ koy wax rek ndeg bëgg rek mos ci suñ naan bi fa sama xam mu am fii ci bakkanam fa sama xam mu yëkkate mooy mu rëylu bi am fii ci bakkanam salafan ngir jafeñ wala ngir rëy mm-hmm. mu woon ñu melaw yëg boppam bu baax a baax mm-hmm. waaye dara ci moom du doñu mm-hmm. wana a mu bi jaani bi anafan ngir jomu comme nee na soxla wu daal dogu na ci joxe gannaaw waan sada mu sadd nag di wéy lii mu ne nahaniya sëybu amma afrahi fa kayfa ajmaa bayna arrahi warrahi naxaaniya tere na ma hmm. bu bay jaaw xam hmm. maa loo xam ne fii nekk na ci afra yi samay mbir hmm. dama doxatul gune subaani yenn yëfi gune yi xam ne mag laa da war sax waatuma woo gees ah tere na ma bu bay jaaw xam maa loo xam ne fi nekk na ci afra yi samay mbir ba kay faaj maa naka laa de bayna raay ci diggante ténk mm-hmm. war raay ak sàngara mm-hmm. kaasab sàngara ci suma loxo mm-hmm. war daam waxali joosu ndax dana dagan ittibaa yi sabag naan suba min muattaqatin ci sàngara su yàgg mooy sàngara si ñoll suñ beber waqat anaara te leeral na masibu rasi bi jaw boppu itbaa yi sama sama xëy sama foog nga ne ma bu boobu weex tàll ak bay jaaw mm-hmm. nga nekk ci diggante ay gune mm-hmm. mel ni ñuy xuwaare ndax mm-hmm. jaadu na waale joosu ndax dana dagan istibaayi samag naan ak suba min muataqatin ci sàngara su yàgg waqat anaara te mbiram leeral na istibaayi sama xëy ma suy bu rasi bay jaaw boobu ma si mooy fane de anaara aalaytu giñ naa ci yàlla ne la xaamarat nii du muurati sama xol mm-hmm. alxamru sàngara mm-hmm. maa leqat feeg hajuna mm-hmm. roohi sama roox bi gis mii ci sama jëmm waal faat yi ak feeg hajuna samay baat bi sayi ci sama fasaa gis li des ci dund bi man dootuma ji mos sàngara wala tasat te dootu woo dooti mm. lii ñaal ma yedun loxo mm. bi kaasaati sulaas bi ci kaasi sànga mm -hmm. su ma loxo dootu ci xotta kaas téye kaas -hmm. wala ajaltu dootu moom wëndeelati -hmm. xidaa yi samay banti may sar bay naa xidaa yi ci diggante ay kaas gis nga li ngeen nekk nii ci kenn ma ci dugal alaytu giñ naa ne hmm. laa xaamarat nii du muurati sama xol hmm. alxamru sàngar hmm. sàngara maa aleqat feeg ajuna roohi sama roox bi gis ci sama jëmm waal faati ak ajuna samay baat bi sayi ci sama fasaha wala wala tasar te du hoddooti lii ñaal na yedun loxo bi kasaati sula bi ci kaasi sàngara xam naa kaas bi nag mooy hoddoo loxo bi na dunne loxo bi mooy hoddoo kaas bi kon mm-hmm. affaire bi euh, qalbu moo ci am. Mm-hmm. wala jël den may wëndeel. Mm-hmm. xidaa yi samay bant may far. bay naa xidaa yi ci diggante kopp. wala saraftu dootuma soppatati. dootuma soppatati. xam mi sama ila sirfin jëm ci sàngara su sell. musa saatin wala sàngara suñ jaxase. walaxtatu dootuma tànnati. wala xutu dootuma gontati. murtaan daaji nimse daaji soppu. ila rayin jëm ci sàngara. man daal ku yow waxi sàngara waxal hmm. man waxatuma waxi sàngara hmm. moo tax ne wala saraftu dootuma soppat hmm. xam mi sama yitte ila sirfin jëm ci sàngara su sell musa saatin ba sàngara suñ jaxase déedéet wala roxtu dootuma gont mustaahan daaji bég daaji nimse ila rahin jëm ci sàngara wala nasamtu dootuma booleeti sam lii sama mboolo ala masmulatin ci sàngara abadan faw jotaay boo xam ne man maa ko créé. Mm. ñu ne naanam tàngal rek a tax. Mm. dajee de noos rek a tax. Mm. loolu dootuma ko def de. Mm-hmm. wala nazamtu dootuma nooseeti dajee leeti. som lii sama mboolo. ala masmulatin ci naanam sàngara. abadan faw. Mm-hmm. wala satu dootuma tànnati. nat maanaam aji naanowaale. te wa saa yi lu dul aji xarit. jëfandikoo luy muy ñu bokk lu ñuy naan. Mm-hmm. maa par almasibu be jaaw meraag mm-hmm. yi sama mbégte xiina mm-hmm. xatta waxtu ba mu rëddee xalaat mm-hmm. fii ci sama bopp be jaaw ba mu feeñee ci sama bopp ci laa xamee ne doxatuma gune booba la yëfi ndaw jeex ci man faaf kat xéemu nag bañ bii ci moom min katibin ci aji bind maa hin ku daa ji far na rëddam bu weex bi far sama mbégte moo tax maa ko bañ li muy leer leer noonu laa ko bañee de laa ko bañee <laughs> loolu laa ko bañee maa far na almasibu bay jaaw miraa yi sama mbégte ina xatta waxtu wam rëddee ala rasi ci sama bopp baax seen xéemu nag bañ bii ci bay jaaw min kaatibin ci aji bind maa hin ku daaji far wala xëy na moom bi jaaw mm-hmm. yàlla xaa damay yedd mm-hmm. ala jëri ci diri gi may diri mm-hmm. alxenaana gopp ci la malxan jëm ci foofu li may dugg ci yenn daje yi noos yi moom bi jaaw ma ci yedd fa su xam xoona ak sori la wa ñaal bi jaaw la hin aji feeñ la hin ku daa ji yedd walaw la xawtu suma boor wa faw lii te suma wàllu bopp saayibun aji bi jaaw mm-hmm. la. la xabaa kon fay misbaahi sama lamp. Mm-hmm. baynal masaabi yi ci diggante lamp yi. Mm-hmm. min xasaan ak ca xasaan. sa samay bokk mm. mag muy fo mm. safut leen mm. li ngeen may foo nii su ci fekkee dootuma jar dara ci ñoom dana wax dëgg yàlla kilifa laa war a doon waaw walaw laawtu su ma foon su ma duggoon ci lahu wa faw lii te sama wàllu bopp sayi mun aji bi jaaw la ba kon fay mis bàyyi sama lamp baynal masaami yi ci diggante lamp yi min xasaana ci xasaan ndax xaw mun aw nit lañ ñoo xam ne sa jayaawum seen i jikko daw xiiru day bi mooy ganale seen gan ay nit lañ ñoo xam ne bokk na ci seen i jikko mm-hmm. fonk gan di ko ganale mm-hmm. wa sëy bu tebee jaaw nag mm-hmm. day fon gan la gu xam ne loo aji sax la ñaal ko a tawxiiru ganale yaa saa yu suma àndandoo te nag bi jaaw gan la dañ ko war a ganale lii la wax summa innahu topp moom insaaba yooru na insiyaabal ay mi kam yooru jaam xam nga day dem rek ci dul benn yëngatu ci saa rek mu ne met waaj fala mu fandañu it mm-hmm. falal xaymi mm-hmm. kem kem fandañu niir mm-hmm. waaj fala mu fandañu it falal xaymi kem fandañu mu dem comme niir wuy soo niir wuy niir huri fa alimtu ma xam ne am na woon naka moom siraaju saruja mooy lampam saruja wa badrul adabi tey weeru adab alladi weer wi nga xam ne mm-hmm. yaa taje kitaabu dana mu tagg alburoje mm-hmm. burdi burdi mm-hmm. ma xam ne ndeke abu zeydi ni suroji la wa kan nekk na pusaaraana suñu dayoo daal ak taharruqa di lakkatu li boodi yi ngir sori wa tafarruqa tàggaloo li boodi yi ci gannaawam loolu daal la ci lay bu jeexee rek